donc je suis bi maire de la ville Daouda a dafa taxawal crise ben cellule de crise Bien que, ki nga xamné moy mooy conseiller si santé muy docteur Matar Cissé cellule qui tamit ba ñu ngi suba ak pour xool ban taxawaay moo war a nekk taxawaayu Tëngéej pour aar askan wi ak tamit fexe fexe tamit ba daan maladie bi nga xam ne euh, dugg na ci dëkk bi yépp ci kaw loolu bi ñu xaymee li nga xam ne moo war a nekk taxawaayu mairie bi yépp di taxawaayu Tëngéej yépp maire nous na ñu génn fukki million yoo xam dañ koy département parce que tamit am un courriel départemental boo xam préfet du département moom moo nekk ci bopp bi décidé ñu millions jox ko ministère de la santé parce que ministère de la santé tamit mom moy jité kuréel gi nga xamné mom moy xex mbass mi au plan national ginaaw loolu tamit meeru deuk bi jël na ay ndund dund manam tiep diwlin suukar jagleel ko daara yi ndaxte bi ñu xaymee daara yi jàpp nañ ne Tëngéej am na 90 daara xamal nañ ma léegi sax ne 90 yooyu sax dem na ba 100 daara yu ñu euh, xayma officiellement donc suukar si ak diwlin yi ak ceeb bi ñooñu nañ ko jagleel loolu nag dañu koy jël teg ko ci loxo meeru communes yi ñoom ñoo xam nombre de daara yi nekk seen commune bu boobaa ñoom ñi jël ndimbal li jottali ko ñi ko yeewoo loolu mooy dogal bi ñu jël pour daara yi e jëlaat na tamit beneen dogal jagleel 20 millions qui, euh, nous mu tuddati encore jagleel 37 millions euh, daara yi ak euh, les personnes vulnérables ñooñu avons ràññee nañ ci handicapé yi ñoom tamit jàpp nañu taxaw nañu pour les leen. dañ leen jàppale ci ay euh, jumtukaay yu jëm ci setal yu jëm ci set maanaam ay saabu euh, maanaam aussi ay euh, détergent maanaam aussi ay gel pour mun leen a aar ci feebar bi ci 37 millions yooyu tamit tegu nañ tegaat na ci 40 millions yoo xam ne dañu koy jàppale tamit néew ji doole ji après 40 millions yooyu jëlaat nañu tamit 3 millions pour gungee ko hôpital Youssou Mbargane parce que moom tamit dafa am taxawaay bu mag ci feebar bi te kuréel yu mel ni maire yi tamit euh, am ay obligation yoo xam ne dañ ko war a matale ci kaw loolu la maire jëlee 3 millions tamit pour jàppale leen kon nag mun nañ jàpp ne mairie Tëngéej dina jël cent vingt millions dugal ko ci feebar bi